ñun Jobaas dañoo ñëw pour pour pour dépister euh, sensibiliser femmes yi parce que cancer comme que day gagner du terrain léegi dañoo ñëw pour pour sensibiliser leen dépister leen ñu ko ci am. suñu paree fii parewuñ dañuy dem ci yeneen localité pour déwén déwén compte nañ dem ci yeneen localité ndax ñu politique wuñ dañuy dañuy social. daaw def nañ ko ay BD ren ñoo fi déwén te ko yàlla incha allah bëgg nañ dem ci feneen ak feneen yenn village du am kii bi comme dispensaire nii suñ fi ñëwee nii.

mat fukki deug ak juróom ben ñew nañu fi tay tew tew ci bés bi kon ngeen deglu bu baaxa baax leen borom xam-xam yi wax ci li ah ngeen topato seen wér-gu-yaram ndax yeen lañu am yen su ngeen feebaree ñu febar kon yeen da ngeen wëra wër ndax ku jàppale jigen jàppale nga famille ku jàppale famille jàppale nga société ku jàppale société jàppale nga rew kon jigéen jàppale ko jàppale lu am importance la ci wàllu wér yaram mais également ci wàllu tagat ak ci wàllu formation kon lépp li ñu fi wax na ngeen ko jàpp bu baax a baax a baax di def aussi dépistage di sol seen daal di def dépistage dem ci hôpital di di yër yaram yi ndax ñun sénégalais ñun Africains, dañuy xaw a sàggane souvent euh, prévention Manam fièvre dañu xaar bu mu ne kët ne jonn ñu do ko song alors que fièvre dañ koy téle xol même ba amul dara doxal solo sa dal demal hôpital ne sétal ma sama yaram lool vraiment lu lu may ñaax la muy goor muy jigen waaye surtout yéen jigen ñi ndax euh, yalla daf len jagleel mission bo xamné la mission de la création mu am lo xamné daf daf ci and ak ay ay jàngoro donc loolu bax nañu koy teel a saytu ko saytoo rek yalla daf mën na ci def sutura